waaw ñi ngi kay étudiant yoo xam ne ñi ngi euh, Russie euh, d'abord lañ leen di njëkk a laaj fan ngeen nekk ci Russie. moo ñun ñu ngi Russie ci Mbekop euh, ville après Krasnodar. foofu rek ngeen fa nekk ay étudiants. waaw ñu dañoo fay étudiant Sénégal quoi cinq lañ fi quoi. waaw lan moo di seen i jafe-jafe. waaw ñu suñu jafe-jafe mooy bi ñu fi ñëwee dañoo waroon ñëw pour jàng si suñu première année ñun ñu ngi fi ñëw mois de janvier presque ñeneen ñu ngi fi ñëw février à fin décembre doon nañ traité ak établissement yi ba war a jot suñu logement ak ba ñu renouveler suñu séjour ak visa yëpp ba war a commencé jàng par la suite nag ci la quarantaine bi imposé wu bi quarantaine bi imposé wu nag jotuñu suñu logement dañoo luye woon instant bii nii fi ñu luye noonu dañ doon fay biñ fay bi dem na dafa fa métti mënatuñ fay continuer fay bi nag léegi instant bi dañoo génnee nii actuellement presque deux jours ñu ngi nii ci biti ñu ngi ci mbedd mi ci koor gi dañuy fi ci mooy loolu dañuy woor ba ngoon du am luñ dogoo

bañ commencé asut mooy may loolu mën noonu faj dara par la suite jotoon nañ président groupe bi mu ne dana contacter ambassade bi mu noonu ko diggante ak ambassade mais jusqu'à présent ba léegi amuñu ci lu ci leer ambassade bi envoyé nañ leen bi nee na euh, bi euh, ambassade bi xam nañ ni ngeen dund. dina leen woo ba tey jusque ba tey ñu ngi ci mbedd di xaar appel gisuñu kenn kenn woowul ñu ngi ni toog ba léegi nii. ñaata fan a ngi nii ngeen di fanaan ci mbedd mi. bi mooy deuxième jour tey bu fanaan tey mooy troisième jour te fii Russie la dafa sedd ak danger bi ak ñi ngi dañoo exposé ci feebar bi noonu quoi des lay taw sax keroog sama portable bi am na ko problème dafa yàqu suñu valise yenn bagages yi quelques documents sax ñu commencé yàqu mooy loolu. mais yéen kon foo ne ci dañ leen génn mi. benn coin daal la gisoon fi boo xam ne ab genre mbaaraan loolu benn benn bâtiment boo xaw a yàqu nag fa lañ dencoon quelques bagages mais bu defee forte pluie ndox mi lay dugg si biir foofu lañ fa. mbaa doo nga xam ne ñooy force de l'ordre yi nekk foofu Russie. force noonu ñun ville bi ñu nekk nii euh, du ville boo xam ne dafa xaw a kii quoi riche daa am ville bu xaw a ministre maanaam poste de police bi dafa xaw a ak nekk ak ñun te en te en général police bi du def patrouille fi nekk noonu fi nekk noonu dafa xaw a sori quoi loolu moo ñu a musal. waaw ah, kon maa ngi lay sant di la gërëm wala ban message nga bëgg a lancer. ah man daal may lancer mooy Sénégal wax leen ne am na seen doom seen doomu Sénégal yu nekk fi sonn lool sonn lool amuñu fu ñu dëkk amuñu lekk amuñu lu ñu naan mooy loolu dëkk bi métti na fii trop te fii ñoom xamuñu ñu jàppale waaw te aide yi nag bëgg nañ cee jàpp aide yi état bi da koo def pour suñu disposition ñu ñoo ko moom des étudiants non boursiers lañ wax. ñun du ñu ay étudiant boursier ay étudiant contracteur leen kon lu mu dee dee dee war ñu mën a aider pour ñu mën tee jël fay suñu logement ba quarantaine bi jeex ñu mën dem école continuer suñu étude wala ñoo xam ne def parce que échange sonn na trop loolaa la ñu bëggoon ko ci jàppale. jërëjëf maa ngi lay sant di gërëm. ok merci jërëjëf Pabal. Dakar Matin.